jumaay Serigne Bamba ji mu ngi noonu mbokk yi gis ngeen ko alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV ñoo ngi fii ci Touba Mbacké Touba Fall ànd ak Abdou Aziz Ndiaye doomu góor gi lan lañ fiy def si mooy indi addiyaam ji muy indil fii ci Touba indi fi ay nag ngir jëbbal ko ki nga xamante ni mooy Serigne Mountakha muy barkeeloom ci màggal gi tabarkàlla ngir xam ne Sidi Hadj Malick ak Serigne Touba benn lañu mbokk gis ngeen ko alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh tey fii lañ leen ñëwal ànd ki nga xamante ni mooy Abdou Aziz Ndiaye mbokk yi mu ngi noonu ñu ngi foofu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi gis ngeen jumaa jaa ngi noonu tabarkalla ngir ànd ak Abdou Aziz Ndiaye ñëw fii taalibe Seydi xaj Malick bi tey mooy ñëw fii ci nga xamante ni mooy dëkku Serigne Touba bi ànd ak Abdou Aziz Ndiaye li nga xamante ni mooy taalibe Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ñëw fii ci dëkk Serigne Bamba bi nag indi fi ay nag tabarkalla xam nga ni loolu wane na ni moom diine ji dong ko ñor mbokk yi gis ngeen ko alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV maa ngi jëm nag kër mun Mountakha ànd ak Abdou Aziz Ndiaye ak rakkam Baye Ndiaye mbokk yi ak ñi nga xam xamante ni ñooy njabootu góor jaale yëpp tabarkàlla mbokk yi ñu ngi noonu alxaaji Mbacké Diop ak ndox Ndokh TV ci kanam tuuti ñu topp ñu wane li nga xamante ni mooy Abdou Aziz Ndiaye ak ñi moo àndal ginnaaw bi mu gisee ak euh, xalifa bi ba pare jot nemmeeku bi nga xam ne moom nga nemmeeku tey ku fi toog a xaalis. alhamdulilah mina shaytaan rajiim bisimilah. tey kàddu yi moom kàddu mbégte la yoo xam ne kenn xamul fi ñu commencé. di ñaanal nag sëriñ Mountakha yal na yàlla yokk fan yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla kattanal yal na ko yàlla may ndam ci liggéey maanaam nga xaajuma mbégte nag la ñu am tey ba xam ne kàddu yi sax dinañ sori di ko gërëm di ko sant di gërëm njaboot ak ñëpp di gërëm sëriñ Bass yi baax na kay sëñ Bass bu baax suñu xarit suñu sëriñ suñu wëllëg ñu koy gërëm ndax ñun boo gisee ñu jàpp sëriñ Bass ñu jàppe woon suñu turandoo suñu sëriñ bu baax la sëriñ Absa Aziz Al Amin mm-hmm. loolu tax ñu wéyal suñu couleur am na mm-hmm. waaye dañu ñu ndam suñu mbokk taal yi suñu mbokk murid yëpp ndax comme ni ma koy faral di wax sëriñ Touba moom patrimoine mondial la ñëpp a ko bokk rawatina ñun Sénégal yi def ko suñu yëfu bopp ndax mag mu yàlla gërëm comme ni ko sëriñ bi waxee rek soo bëggee ngërëm da ngay liggéeyee mag mu yàlla gërëm suñu maam Cheikhul Khadim ku ne xam na ne am na ngërëm suñu borom ba tax na ñun ñu di ndaw ak fu ñu mën a bokk dañu war a bokk ànd bokk ndey bokk baay ñëw sàkku ci ngërëmam sàkku si ngërëmu njabootam looloo tax moo suñu bokk mooy mooy nga xam ne. ndax moom bërki démb yaa nga woon Tiwaawan te sa dëkk maam ak teraanga gi nga def ci jumaa ji tey jii nga ñëw kër Serigne Touba indi fi teraanga loolu mu doon loo xam ne ci jikko la ju nekk lan moo tax xalaat ko mel ak di ko jëf moo tax mu wéyal noonu waxoon naa ko naa ko dénkaan sa bopp am sëriñ laata may ñëw fii si ma tàggu sumay waajur dem Tiwaawan tàggu xalifa général Serigne Babacar Sy yëgal ko ni ko ne la yéen a dem mu rafetlu ko trop te kontaan ko trop ñëpp nag ci wax na ci wax ci wax ay góor yi ko seen loolu suñu loolu te comme loolu nga amul kenn amul ñu baax na sax seen xaaj maa ngi ñu moom ñu baax na maa ngi bëgg Touba moom bu kuntaan ñu leen si dañ leen war a woon dañ leen war a roy dañ leen war a topp ndax li am fii amul fenn kon ñun tam en tant que ndaw ñun ñu ngi bàyyi xel dañu war a góorgóorlu ci suñu wàllu yàlla rek góorgóorlu ci suñu wàllu yàlla bi ba nga xam ne loolu xam ne ñu mën a koy wane sax ñun li ñu am ci lu baax ëpp na sax ci ñu war koo wane fi ñu ko war a wane war nañ ko gën a góorgóorlu mu saawa Sénégal yëpp adduna yëpp ay Sénégal yàlla def na ay mag ay mag ñoo xam ne doy nañ sëkk ñu jublu màggal bu mu paree ci màggal bi ci gàmm ñu gis ni am na jàngoro ju nekk ci adduna bi mu di covid 19 et yan matukaay la am yaay di sàkk ci taali bi mbokk julli di ñaan rek xam nga comme ni ko suñu sëriñ bi waxee suñu baax la suñu ñu respecté mesure barrière yi nga xam ne Sénégal mesure barrière bi nga xam ne mooy waaye bu dee wala balaa ngaa dem wàllu économie président de la république ñu ngi def relance encore l' économie ngay xale industriel yow lan ngay conseiller jeunesse bi ak ñi nga xam ne dañoo liggéey ci wàll bi. am taxawaay am fulla am fayda te xam ni réew liggéey moo koy doxal réew foog nga takku am fulla am fayda te teg ko ci yoon yal na yàlla may xam ne koo xam ne ñu yëkkati Sénégal président de la République ñu am ñu koy ñaanal ñëw tabaam ci moom jëmbal la suñu ziyaar ñoo ñaan gaal bi mucc ñaan sa ëmb mucc bu gaal bi mucc yàgg sa ëmb borom gaal bi yëpp ngeen di mucc yàlla na ko yàlla may ndam sutura